mbokk yi nuyu naa leen monsieur le ministre euh, de la jeunesse euh, depuis 2012 ñu ngi leen di. depuis 2012 ñu ngi leen di wax ne fi ngeen jëm baaxul fi ngeen jëm baaxul fi ngeen jëm baaxul di naan leen li ngeen di jël comme dogal baaxul ci réew mi rawatina baaxul ci ndaw yi. Goulet ma d'accord ak yow. ci seen document bi page 7 cependant malgré les nombreuses stratégies déployées en faveur de cette frange de la population constituée de 76,75% de jeunes âgés de moins de 25 ans les problèmes et les besoins persistent et soulèvent ainsi des questions liées à l'efficacité et à la pertinence des options politiques et stratégiques jusque-là adoptées dans le secteur c'est la première fois ma d'accord ak yéen résultat yi ngeen am tey li muy wax mooy li ngeen jël comme dogal depuis 2012 baaxul santul ngeen toog ba 2023 ngeen di soog a élaborer politique de jeunesse yaa ko wax ci rapport de présentation 2012 ñu fal leen 2023 ngeen di soog a élaborer politique de jeunesse mu dese leen at. xam ngeen li ñu tàmm wax depuis 2012 mooy gouvernement boo xam ne lu ëpp lu mu mën créer mooy. trente mille emplois ak bu nekk chaque année mu am trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d'emploi trente mille emplois chaque année ci cinq ans de cent ñaata demandeurs d'emploi trois cent mille fois cinq ça vous fait un million cinq cent c'est normal mënu leen ko régler ndax lan jël réew mi jël exporter suñu ay emploi ndax jël marché yi jox ko tubaab yi ngeen jox ko entreprise état sénégalais yi mënuñu absorbé li nga xam ne moom mooy l'emploi des jeunes c'est la faillite totale du président Macky Sall c'est la faillite totale du PSE monsieur le ministre tey le 29 novembre ndaw yi nga xam ne ñoo nekk programme civique national jusqu'à présent seen payooru octobre kenn fayee ko jusqu'au moment où on parle 29 novembre seen payooru octobre kenn fayu ko Voilà votre politique de jeunesse voilà la politique du président Macky Sall et pourtant yow sa payoor musul tardé yow ministre man sama payoor musul tardé man député ngeen bëgg ndaw yi toog fii retard de salaire arriéré de salaire emprisonnement chasse à l'homme wala ñu rey leen ngeen bëgg ndaw yi toog fi lii mooy seen programme de jeunesse au lieu que nga doon dem di cirer les plateaux de télévision vous auriez dû vous occuper de la jeunesse de ce pays-là monsieur le ministre des finances aéroport du lu tuuti de aéroport lu rëy rëy la est-ce que xam nga ne am na ay liggéeykat yi nekk ci benn entreprise bu tudd EAS amal nañ leen trois à quatre mois d'arriérés de salaire ils sont cinquante cinq plus de cinquante cinq pères mères soutiens de famille lii moo xew ci réew mi maa la ko doon wax démb à la fin de mon temps de parole 1289 policiers de la 47e promotion vous leur devez 12 mois d'arriérés 12 mois d'arriérés d'heures supplémentaires lii lii mooy dëgg effectivement lii mooy dëgg génnee leen xaalis bi seen armoire génnee leen xaalis bi seen suufu au moins fii ak trois mois yi leen fi dese Sonko cinquième président nous allons tout changer nous allons tout transformer radicalement ndaw yi toog leen fii Sonko cinquième président.